jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM quatre vingt dix sept point euh, seen émission pencum réew mi daal di euh, dellusiwaat comme ni nga xam ne moom lañ ko baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot. bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak seen mbokk Abdou moom Seck Mamadou Diaw Diall moo nekk ci wàllu technique bi ñu nuyu sunu mbokk auditeurs yeeg sunu mbokk auditrices yi mbokk yi tey nag ñu daal di invité Alioune Sané. Euh, Alioune Sané bokk ci euh, parti bi nga xamante ni moom mooy euh, rassemblement des écologistes du Sénégal les Verts boobu nga xam ne Ali Haïdar moo ko jiitee moom membre la ci nekk coordonnateur au niveau du département de Dakar To réew mi FM ma ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay ji lii di gërëm leen si invitation bi nga mën ma invité. Euh, ñoo ngi am mbégte bu baax a baax euh, ci wuy si bi nga xamante ni wuy si nga ko li nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy invitation bi suñu première question rek mooy li nga xam ne mooy actualité mooy mbirum coronavirus bi nga xam ne ñoo ngi wax mbirum deuxième vague yow lan moo ci sa xalaat. waaw suma xalaat mooy lu ñu loo xam ne tamit dañ ko doon xaar parce que soo gisee dafa amoon benn dañu bàyyi woon suñu loxo wax naa ko sax si RTS ne leen bu leen naagu. ñu ma invité fi naa leen ko nee na naagu warul am parce que lii lu am la parce que ay hmm. Amérique Europe adduna bi tàlluñu pour xeex Sénégal wala xeex ma sàmb naan la corona am na Chine ñoo ñu amuñu jot boobu je pense que adduna bi yëpp gis nañ li fi am États-Unis ñu ngi lay wax ay deux mille sept cent morts par jour ban war a taxaw sénégalais mooy li ñu digal ñu def ko fagaru moytu jotaay yi di sol yi masque def comme ñu ñu def euh, yi nga xam ne dañ leen ko digal ci communes yi mooy am na ay comité de ciblage man ma bokk bu commune Médina def nañ liggéey bu am solo ma siy féliciter toute l'équipe yaa xam le maire le conseil municipal les partis politiques mais est-ce que mul benn relancement boo xamante ni tey euh, moom moo waral ñuy wax waxu deuxième vague si si loolu la dañu bàyyi suñu loxo dañu bàyyi suñu loxo man bi mbas bi di jeex am amené mais partenaires ñu ñëw jébbal li nga xam ne mooy collectif Lebu teg ko si loxo Grand Serigne Abdoulaye Diouf Matar dix mille 40 thermoflash 200 draps et 2 tonnes de riz parce que ñun xamoon nañ ne li nga xam ne jommul France jommul États-Unis xam nañ ne dañ ko war a xaar te waxoon naa leen ko dama ne nit booy xeex dara ba muy dellu ginnaaw si nga war a gën a faagaru. mais ñan ñoo def relâchement boobu. état am na si responsabilité chef religieux yi am nañ si responsabilité. Mhm. oui les hommes du showbiz am nañ si responsabilité. état euh, sénégalais yi seen bopp. citoyen yi seen bopp ñoom ñoo ñoo may ñooñu ñëpp sax ñu mun leen bàyyi ñuy relax noonu parce que ñoom ñoo war a am fulla fayda xam ne lii liggéeyuñ ko pour gouvernement liggéeyuñ ko pour chef religieux dañ ko liggéey pour askan bi mooy moytu leen askan bi ñoo war a moytu kenn waru leen wax moytul man du ma xaar am naa fulla bu toll nii ak gëm yàlla bu toll nii man xaaruma kenn nga naan ma moytul man lu ma yëg ne dama ko war a xeer buy daanu du mën a jàppale ma ndax ma puus man damay jóge foofu yëpp mais relâchement bi euh, euh, est-ce que tamit euh, ndax tey par exemple tey gis nañ ne coronavirus dem nañ ba jamono joo xamante ne gis nañ ne état bu Sénégal ñoom ñooy continuer di def seen i seen activité politique gis nañ ko si ñoom gis nañ ko tamit ku si mel ni président Macky Sall est du ñoom ñooy ndey mbi ligi jamono ji non ñu ngi si am responsabilité loo xam ne mi ngi ne fàng kenn du ko jeex je partage cet avis avec vous ils auraient pas dû faire ça parce que man gis ay vidéo ñuy wane diw mu ngi nii ministre bi def na lii kii wane na lii te ñu ngi wax corona mooy tu leen oui vous avez raison ils ont tort. du exemple bu baax. du exemple mais du baax dama la wax du exemple bu baax sax mais c'est c'est inacceptable munoo ne nit ñi def leen lii ba pare di wane naka su dul noonu loolu c'est inacceptable indigne d'un état ñu ko def dañu war a lu fexe li ngay woote nga jiitu si. d' accord léegi euh, ministre de l' intérieur fan yi dafa génn benn arrêté tere ay rassemblement ci salle de spectacle yi wax ñu tëj ko ak ci plage yi euh, gis nañ ne ñi nga xamante ni ñooy acteurs culturels yi ñoom d' accord ñu ci loolu ñaari waxtaan am na seen diggante ak euh, ministre de ak déggoo amu nee nañu àllarba bi di ñëw danañu am toogaana ñaxtu sit-in place de l'obélisque yow lan moo ci sa xalaat. non xam nga tamit ñoom dañu war a delloo seen xel parce que ji li naa la wax tey fii loo xamul woon gis nga gars euh, mooy yaa xam boîte de nuit yi la. yaa xam baar yi la yaa xam restaurant yi la loo liggéeyul si at yi passé doo ko liggéey si benn weer ndaxte boisson bu jar deux cent nga mun ko jaay sa place mille francs wala mille cinq cent wax dëgg yàlla bu neexee dangay sant yàlla mhm. bu naqaree tamit nga muñ inna allaha ma sabirin wéy mhm. seen liggéey la mbir bu amee dafa am ñu muy affecté yow mi toog sa studio di liggéey pour mu affecté la day metti parce que yow bu la neexee sa invité sax du ñëw fii te di nga def sa liggéey mais yow mii woote nit ñi pour ñu toog pour ngay way ñuy kappat ñi di la compter xaalis mënul nekk mais qu'est-ce que tu am na dangay ngay muñ xam ne lii la nga bëgg nga bëgg ko yaar fan ban pexe lañu mun a am ñu daje ñuy pexe daje loolu mooy lan loolu mooy kay kon bu ñu def prévention pour lan pour nga gañe yow sa xaalis nga def ko sa poche man Sané mi liggéeyal réew mi def ma ko sama may liggéeyal réew mi def ko sama poos yow ngay liggéeyal sa bopp nga ne noonu nañ ñu bàyyi ñu liggéey bàyyi ñu liggéey lan pour nga gagné xaalis après man ma ñibbi dee wala contaminé suma famille nga bàyyil ma ay problème dañu war a joxe seen xalaat te bii mbas mi di am état jël na ndimbal jox leen léegi nee nañ mënuñu dëkk si ndimbal noo ma ne situation bu amee da xaar ndimbal su dee am nga nga génne li nga yor lañu dencoon nañ ko génne daje warul am fu mu doon nag daje warul am dañoo jàpp ne singali la non singali bon xam nga da koy niru parce que wax ko tu dëgg yi dañ naan ah nitu diine yi ñu ngi daje fële pourquoi pas ñoom war ñu daje fii daje daje rek la dañu waxante dëgg alxaq walaw kaana mu ran alxaq walaw kaana bi nafsi man saane amatuma jotu man ma sàmba ma demba du ma tere wax dëgg man damay wax suma dëgg parce que man moomu ñu ma yoruñu ma te xaaruma leen dépendre ma si ñoom koo mu tuddul fii lu bu defee dëgg man la ko def dëgg bu deful man deful dëgg ñëpp si yam nag daje daje la amul politique nga amul artiste nga amul chef religieux nga dañu tere daje arrêté leen daje yi ngir yàlla. léegi tout simplement est-ce que du nooy gu état bi nooy. waaw non état day maslaa parce que boo nekkee si réew moo xam ne boo maslaawul ñu teggi la fi. wala ñu wax la yàq la loo musul dégg nooy def. mais nga doxal dëgg rek. non ñun ñi ñoo war a wax nañ leen wax nag état xoolal faire les faites face à ça jàkkaarloo ñoom on vous a donné tous les moyens tous les pouvoirs pour les faire face ñu si yéen tous ay nit rek lañu defaruñu banaana defaruñu orange defaruñu mango defaruñu ginaar. wax rek lañu fi nekk mais mais euh, état bu Sénégal ak 1000 euh, milliards yi. Euh, ba léegi nii ñu baree baree tey jàpp nañ ne turu 1000 milliards rek la euh, yow lan moo ci sa ci xaalis boobu nga xamante ni tey 1000 milliards yooyu Sénégal yi dégg nañ ko te ñu bari gisuñu si seen bopp. non non non c'est que loolu tamit il faut ñu leeral ko 1000 milliards yooyu bokk si ne jàpp si entreprise yi nga xam ne yóbbu nañ chômage technique seen i employés mais di leen fay soit moitié salaire wala di leen fay seen salaire te ñoom li ñu doon dugal dugaluñu ko loolu bokkoon na si taxaw leen si beneen bi gis nga kër yuy bëri. wax dëgg yàlla man de Médina bi ma dëkk si comité si bi laa bokkoon fekke naa toog naa gis naa ceeb bi bien vrai que man au nom des écologistes joxe naa ceeb bu bari wax naa la tamit li li ñu def keroog ak ñoom collectivité lébu mais dama ne gouvernement li mu joxe Macky Sall gis nañ ko parce que jox la ñaari saaku ceeb jox la duulin jox la macaroni. jox la valeur soixante millions saako ceeb si ay mille milliards est-ce que xam nga. mille milliards non mille mais mille milliards yi du pour rek jox la jox gars yi saaku ceeb yi. mais ñan la si dimbale ñan. non artistes yi dimbali leen si dimbali si entreprise yi. dimbali si askan bi xam nga askan bi seize millions de de personnes. entreprise yi euh, bu dee tey par exemple entreprise yi mën nañoo wax ne xaalis boobu presque lu mu leen lu ñu leen lebal la. si naka. maanaam boo xooloon sax tey bu doon entreprise euh, yi nga xamante ni presse bi la ba léegi seen xaalis boobu jotaguñ ci. non xam nga état bu demee bay def aide à la presse. même boo ko teg aide à la presse. waaw non moom laa wax bu demee ba def aide à la presse. di leen ko jox ñu koy jot kon bu ne leen dama lay dimbali ndax mbas mi parce que liggéeyoo da leen di dimbali xam nga yow mbas mi taxul ngeen bañ a am publicité publicité fi muy jàll du contaminer mbas. ña mais mais ñi doon def seen i ñi doon def seen activité bay def publicité ñooñu defatuñ ko. waaw léegi nag mais comprendre nañ ko loolu la état comprendre moo tax mu dégager mille milliards te du état Sénégal rek état adduna bi yëpp la xam nañ ne économie bi dafa paralysé liggéey yi doxatul état bu mu munti doon di nga génn moyen mettre ko à la disposition de tes populations te man gisuma ban nit moo war a jaral Macky Sall wala gouvernement wala gouvernement monde bi ku mu munti doon nga war a taxawu sa réew si loo xam ne ñoo ko moom doo ko def pour lan mais lan doo ko def mais deuxième vague bi ñu bari euh, gëmuñu aussi deuxième vague bi. mais ñi ñooñu ñooy reykatu nit yi. c' est des assassins c' est de grand chemin. on doit les arrêter les mettre au njuf ku la wax corona amul dañ ko war a jàpp tëj ko c' est des criminels de grand chemin. mais lan moo tax ñu leen di jàpp. mais parce que waxu ñàkk wax dëgg la. parce que duñu nit yu dëggu. ku ne la corona euh, amul waxul dëgg. waa non mais. Euh, too corona amul loolu waxul nit sax toosaane toosaane bu ñuy seet ay nit ñoo xamante ni tey du ñu wax kàttu dëgg wala tey lu ñu wax man see génn. wala tey par exemple tey ay escroc mën nañu ko xool ci ñi nga xamante ni tey ñoo ñoo ñu jiite. waa dama ne ndax ñoom yàgg nañ fee wax loo xamante ni tey jili booy wax wax dëgg. Mhm. ak escroc yooyu yëpp nga tudd. Mhm. man génnuma si kenn. Mhm. waaw dama ne rek moo koy def. waaw da nga ne te nit yi fu ñu nekk fu ñu nekk am na fa. waaw xam nga danga wax ne. xam nga am na sénégalais yoo xam ne euh, gëmuñ ne deuxième vague am na. am na sénégalais yoo xam ne dañu gëm ne business la tey est-ce que sénégalais bi nga xamante ni tey. jàpp na ni ñii nga xamante ne ñoom ñoo jiite réew mi wax tey génnaat si bu doon kub la ñoo koy jël euh, jikko boo xamante ne jikko bu safaanoo la ak dëgg bu doon tey kub la mën na ne ñenn ñu ñoom ñoo koy jël est-ce que ñooñu suñu waxee seeni wax est-ce que warul jërul tey non non gouvernement mënul wax génn si mais ñoom moom lañ dëkkee non xaaral ma wax la boo waxee bëgg si génn mënul nekk c'est-à-dire xam nga lan la feebar am na xam nañ ne feebar bi am na man loolu xaaruma le président Macky Sall wax ma ko parce que gënu ma ko xam adduna bi yëpp xam nañ ne feebar bi am na États-Unis duñu suñu morom se cinquante quatre états mille morts moo fay am par jour Chine c'est la deuxième puissance ou même la première puissance économique mondiale l'Europe waxi noppi Arabie Saoudite ba nga xam ne fa la Kaaba ga nekk yonent bi te jullit bu nekk boo balaa ngay dee da nga a dem dama ne ñoom tamit tey yoon nañ ñu seen i mosquée jël seen i mesure loolu xaaruma sax sama gouvernement di mu wax am na wala amul li ñu war a def mooy la adduna bi yëpp teg bët gouvernement Sénégal sañu see génn d'accord la ma sàmba di wax la ma demba di wax. d'accord xam nga tey par exemple tey état bu Sénégal li mu wax ci mbirum coronavirus euh, ci début bi lépp loo xamante ni defloo nañ ko Sénégalais yi Sénégalais yi doon nañu ko respecté à la lettre mais dama jàpp ne Sénégal président Macky Sall mooy ki nga xamante ni tey moo fi ëpp xibaar ak ministre bi ñu dénk wàllum wér gi yaram di Abdoulaye Diouf Sarr mais bu ñu gisee ne dañuy tere lépp loo xamante ni jëm na ci mbirum rassemblement. ñu ne coronavirus am na Sénégal moom ministre bi di def ay activité politique moom président Macky Sall di wër Sénégal ak gàngooram vraiment Sénégal yi mën nañoo jàpp ne ñenn ci Sénégal yi mën nañoo jàpp ne ñii lii ñuy wax ci coronavirus bi lépp am na lu ci nekkul dëgg. loolu nit war na ko mën a gëm. xam nga man dama ne pour xam ndax corona bi li ñu siy wax am na wala amul bul si déglu rek gouvernement Sénégal wala président Macky Sall dama amul ful la nga déglu àdduna bi ñaar bu ñu demee ba conseil des ministres ñu koy def à distance kon munoo wane conseil des ministres nga koy def à distance ba pare di daje c'est contradictoire et c'est condamnable bu dee am na yaa xam gouvernement la yaa xam tarixa la yaa xam football la yaa xam showbiz la dañu war a nekk nit yàlla borom xel yi la waxal nañu delloo suñu xel xam ne ñun ñëpp ñoo bokk yi atte mooy gis nga fii ku si sa courant coupé nga xam ne coupé na ku si feebar di nga dem hôpital ku si sa oto paan nga yóbbu mécanicien ku si amul téléphone ne téléphone waruma ko mun a ñàkk te defaroo ko kon dañu war a nekk nit man duma laabi soo di nekk fii di xuloo gouvernement li ngeen wax am na wala amul xooluma loolu li adduna bi yëpp teg bët man dama siy jàppale sama gouvernement na attention de lii am na taxaw leen de mais la qu'est-ce qui s'est passé wax nga ko léegi am na ñoo xam ne man dama leen jàppee du ñu nit kuy wax corona amul doo nit du ñu nitu dara corona amul ku koy wax doo nit. d'accord maintenant boo demee ba nga xam ne ñu ngi gis ay kilifa diine taxaw ne la moytu leen ma jël exemple xalif général des Tidiane xalif général des Mourides xalif général des Ndiassane Laayeen ñoom ñëpp ñu takk seen masque ne leen moytu leen def leen di def leen nii wax dëgg yàlla xanaa nag nit boo ko yaakaaree si yàlla bu la waxee moytul loolu mooy jaamu yàlla bi loolooy alxuraan bi moom loolu la ameel mooy moytul. ñu wax leen ko mais yow nga ne yow man nga gëm pour ma yóbbu la si yàlla man ngay jaamu ba pare dëgër bopp ma wax nga weddi ko te man sa waay yow dama ne ñoom seen bopp xam nga lan la gis nga nit ki boo gëmee dara da si dem ba jeex da ngay am kilifa kilifa nag doo ko jiital kilifa woo xam ne soxlawul si yow dara. ñan kilifa yi. kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa nguur gi lu ñu lay wax lan lañ soxla si yow kilifa diine. sa xalif général de Tidiane lan la soxla si man. d' accord léegi xalif euh, général des Mourides lan la soxla si vaccin yi nga xam ne moom la ñu wax ne dafay faj coronavirus. France war si commandé Sénégal war a commandé ci France ñenn ci sénégalais yi bëgg sax taxawal benn kuréel boo xamante ni tey euh, pour pour anti pour bañ a nit ñi jël vaccin boobu la maanaam vaccin bi daal euh, vaccin de la peur sax am na ñu ko tuddee noonu. <laughs> am polémique boo hmm. xamante ni dafa am. Hmm. ci ay médecins yu mag yu xam hmm. ne. ku si mel ne docteur bu suma assistance. ñëpp xam ko moom d'accordul ci li nga xamante ni mooy vaccin bi ni ñu wax ne moom lañ ko liggéeyee et tout ça yow vaccin boobu noonu ndax nekk nga vaccin boo xam ne bokk nga si sénégalais yi ko ñemee wala ah. sénégalais yi ko ragal xam nga docteur docteur boobu déglu naa ko mhm. moom tudd nga ne Babacar Niang ñaaw déglu naa ko dama ne gis nga nit booy wax dangay wax à la de ta formation da ngay wane tu es une personne assermentée ñun du ñu ay dof li ministre bi wax nañ ko Diouf Sarr du dof ci dëkk bi la dëkk nee na vaccin bu ñu mënti utiliser day fekk OMS organisation mondiale de la santé homologué ko États-Unis France Japon yam mais ñu ku si nekk sa vaccin xaaral ma yeggali. non non bala si nekk sa vaccin. di nga xam ban vaccin ngay utiliser tey ñu ngi nii États-Unis ñu ngi vacciné wu. Europe ñu ngi vacciné Joe Biden bi nga xam ne mooy nouveau président demee lay vacciné wu te bu gañee États-Unis coronavirus bi sax moo ëpp lu tax mu gañe ko parce que l'autre là dafa bañoon coronavirus bi donc affaire bi du loolu tétanos mi ngi fi am ñu ngi vacciné wu. sénégalais defalul vaccin defalul micro defalul kuddu defalul puso wax rek la ñu mën. mais am nañ sañ sañ càmbar ko ci lañ dëkk càmbar moom ñoo ko dàq ñëpp. d'accord xam nga. mais càmbar bi du weesuwul li ministre bi wax. càmbar mooy ñoom bu dee am nañu ay technicien xaramo la bu dee am nañu technicien de la santé qui sont capables de créer des vaccins nañ ko créer bu dee am nañu jàng nañu am nañ maqaama boo xam ne loo wax mun nañ ci joxe seen xam-xam nañu wane moo gën wax ji on a besoin téléphone nañu créer téléphone on a besoin de voiture nañu créer voiture on a besoin de train nañu créer train tey say macha réew Rewmi FM je vous félicite par exemple votre rajo tey bu doon ñoom rek doo leen am rajo. mais rajo bi ñuy waxee ñoom defaluñ ko mais vaccin bi ñi ko ragal ndax lan mooy si sa lu ñu si ragal boo feebaree kii kan moo fi feebar doo leen hôpital toujours ñu pikiir leen ragalu ñu pikiir yooyu. waa d'accord mais xam nga tey OMS euh, OMS jàpp naa ne ku am ful sax bu OMS waxee war nga koo mën a bañ a gëm. man boo non xam nga tey OMS. waaw dafa am lu ñu prédire ci jàngoro ji ci au niveau de l' Afrique. waaw wax nanga mi moor. waaw nanga mi kaat li ñu doon wax dara du ci dëgg. déedéet attention dañu ne woon mun na dañu xalaat catastrophe xam nga lu tax. xam nga si lan la ñu basé. waaw dañuy waxtaan ak jiili. Mhm. fii gis naa si pandémie bi même si biir pandémie bi dañuy toog di toog di naan ataaya bokk ataaya bi di échange ay kaas cest à boo defee statistique bi ni ñuy dajee. ni ñuy lekkee si kër yi ni ñuy toogee di naan ataaya ni ñuy nekkee si kaar yi kii jàpp fii ki jàpp fii loxo yi di nuyoo di studio di def yooyu yëpp oui mun nga def statistique parce que la prévention c'est ça nga ne ah gis naa ne fii de comme dañuy nuyoo di bokk ay taas di bokk ay boolax yooyu il est possible que problème bi buy am fii lay ëppee mais Afrique du Sud problème boobu lañu ñu am. d'accord mais Afrique du Sud c'est des millions de cas xam nga OMS. Euh, organisation mondiale de la santé ñooñu ab organisation kese lañ comme ñeneen ñi ñu nekkee ay organisation dajale ay borom. xam organisation. mais waa OMS. Hmm. ñoom bi ñu demee ba nga xamante ni tey presque Sénégal cas yi ma ngi jeex ñoom amaloon nañ ndaje yoo xam ne ñoom li leen jaaxaloon li leen jaaxaloon mooy lan moo tax nit ñi deewuñu comme i weñ. Hmm. ci Afrique. xam nga loolu lu ko indi kon kon dèjà ñooñu. Hmm. xamuñu lan moo tax Afrique nul comme. comme yeneen comme yeneen réew yi loolu rek daf leen jaaxal. non loolu sama sama non li lay firndeel. Mhm. mooy vaccin bi ngay wax ni. Mhm. Euh, jëmmi coronavirus ñii. Mhm. too nañ d' accord ne OMS dañuy làmbatu. nañ d' accord ne ñii di wax waxu coronavirus. ci ay làmbatu la ñu nekk ndax xamulu tax. bu tayee non si dañuy coronavirus bu ñu si waxati làmbatu ji. non non xam nga lan laa lay fa làmbatu. da nga naan amu da nga peut-être amuñu solution wala amuñu garab mais coronavirus moom am na moom. xam na waxuma waxu am. am na wala amul. mais am xamuñu lan mooy solution bi xamuñu lan mooy coronavirus bañ na ba ñii laa coronavirus ñii ñii dañuy wax ne le Covid 19 ñii naan la Covid 19. de dèjà sax xamoo <laughs> exactement lan nga lan nga koy wax. dina ma wala laa. xamoo lë wala laa. mooy. <laughs> mais gars yi nee nañu wax laa quoi non tey. Ah. takk leen masque yi. Hmm. suba bu leen jege yantoo nangam nangam ji. mais loolu musul dañ nag wax boobu musul dañ takk leen masque yi mais mesure barrière moom kenn musu ci non xam nga tey boo demoon France wala États-Unis France wala États-Unis dem euh, dañu doon wax ne gëmuñoon masque yi au début non parce jii may wax yow nii sax mhm. euh, problème boobu moo am lu tax gëmuñu masque yi non au début waaw lu tax gëmuñu sax masque yi au début non xam nga mooy ñàkk xam li nga xam ne mooy feebar bi waaw mais xam nga bu la dem ba waxee lii suba ma sàmba lii la lay wax jii li xam nga lu am solo ji li yow borom xel nga xam nga li am solo mooy nit dafa am loo xam ne kenn warulu ko wax. mais waruñoo gëm mu topp si OMS xam nga sama chinois yi lu ñu ma waxoon. Mhm. dañ ma ne Sané yéen si njëlbeen bi xam nga lu ñu ma wax dañ ma ne Sané d'après les informations que nous avons nous chinois qui se trouvons en Afrique nous avons moins de risques parce que ñoom dañu ne naaj bi daf si am lu muy joué dégg naa Donald Trump sax mu naan américains yi nañ ñaan yàlla tàngaay bi dellu si parce que tàngaay bi bu ñëwee kaa yi wàññeeku. dañu gis ne seddaay bi su ñëwee day favoriser l'évolution du du virus te loolu la ñu gis aujourd'hui en Europe loolu la ñu gis partout dans le monde loolu la ñu gis au Sénégal li am solo mooy moo ma tax a wax si lii dama ne man du ma wax di waxaat te li may wax nii dama ne Sénégal yi laa koy wax dama ne virus bi ku lay wax ne amul jàppee ko dof noonu assassin mais mën nañu jël mais mën nañu jël mesure barrière ko ne nekk ci activité yi. voilà c'est comme soo déggee président waxoon vivons avec le virus toog naa benn réunion avec le directeur le le médecin chef du district le maire le ministre porte-parole Seydou Gueye toog naa réunion man leen man leen boobu présent su ne vivons avec le virus mooy ñaari kii am na si benn bi dañu ne plus des gens sont contaminés plus le virus est moins agressif ou bien deuxième pexe bi mooy Sénégal. suñu dëkk yi nii bu ñu respecté confinement bi dëkk bi am problème la preuve da nga gis ay dëkk commencé gis naa ko Touba gis ko feneen xale yi commencé manifester génn naan non non non il faut ñu dem mhm. Dakar il faut ñu régler. Mhm. voilà léegi léegi loolu. voilà soulèvement voilà soulèvement am mu ngi doon soulèvement bu garaaw. exactement parce que même bu ñu tëjoon nii jamono ji soulèvement mën na am. voilà léegi nag Sénégalais duñ ko nangu. xam nga am na loo xam ne tubaab yi ils ont les moyens. Mhm. de faire face à certaines solutions même ak confinement bi gis nga euh, borom restaurant yi ñu ngi ñëpp ñu ngi grève. même Europe États-Unis ba gis nga Trump dafa bañ. non moom du tëj yi mais demal xool léegi yenn état yi ñu ngi tëj. Ah, mais xam nga. mais au moins ñooñu am nañ yenn moyens yi mais sénégalais biy xos comme ni nga wax fii. waaw ñu gars yëpp defaan nañ thèse boobu. ay sénégalais yuy xos nga xam ne si liggéey bi lañ yaakaar ñooñu boole leen ne bu leen jaayati bul liggéeyati. ay no xam nga Sénégal bu njëkk bi corona bi doog doog ñëw Sénégalais yi comme àdduna bi lu xew yeneen réew yi ñëpp ko yëgandoo internet bi et tout ça ñu gis ne nit ñi non ñu gis ne nit ñi ñoo ngi dee bitim réew mm-hmm. feneen ak feneen Sénégalais yi ñu wax toog leen seen kër ñu toog seen kër euh, lu ñu leen wax euh, sénégal yi nangu ko comme euh, lu ñu leen wax ñu applique ko à la mm-hmm. mais fi ñu toll nii fi ñu toll nii ak li si Sénégalais yi jot a jot jot comprendre ak euh, loo xamante ni tey tey na xelu ñu baree baree baree bari man li ma jàpp mooy tey bu ñu waxoon sénégalais yi na leen toog leen seen kër bëgg a tëjaat sénégalais yi sénégalais yi ñu lànk. non non non non non non si. waaw non si maanaam ñu lànk. waaw xam nga naan sénégalais yi. waaw. boo naan sénégalais dama lay wax lu tax ñuy lànk wax nga dëgg non waaw dama lay wax lu tax oui allez-y xam nga tey par exemple tey sénégalais yi mm. tey man jàpp naa ne man sénégalais yooyu tamit am na ñu sañ-sañ ndax tey mënuñu wax ne coronavirus am na fi ñu génn fii wax ñu ay mill milliards ñoom amul benn jéego boo xamante ni tey buy dimbale askan xam nga yow toosaane bi ngay joxee sa. waaw yeggali li nga doon wax ban jéego waaw la ñoom amuñu benn jéego. Mm-hmm. benn ndimbal boo xamante ni tey ñoom dimbalee nañ ko ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy askan bi. Euh, gisuñu ak lajj koo xamante ne ñu bari gis nañ ko ci ni nga xamante ni tey moom lañ géré moom lañ géré milliards yi xamuñu fan lañ ko dugal amul lenn leeral lu ci am Mansour Faye 69 milliards yi dem nañ ba nga xamante ne ñi ñoo ngi ko yóbbu ay of mais yooyu yëpp nga bëgg ak fi sénégalais yi toll jafe yu méttee méttee métti la Sénégal nekkee askan bi ñooñu boo leen tëjee tey loolu Macky Sall xam na ko service de renseignement yi ñàkkul ne dinañ ko ko expliquer bu ñu tëjoon Sénégal tey tôt maa la ko wax fii émission bi ñoo ngi koy enregistré Sénégalais yi am na loo xam ne du ñu ko nangu. non xaaral ma wax la d' accord dama ne ji li man d' accord naa li nga wax kenn kapaar dama ne waxuma pour aide bi man jàpp naa ne gouvernement Sénégal xaalis bi muy jël di aider Sénégalais yi Sénégalais yi ko moom président Macky Sall. ka ñu def président wala def la ministre jox nañ la assez de ressources pour yow ta vie personnel sax ñu ngi lay fay sa indemnité jox la ay moyens yoo xam ne dañ ko mettre à tes dispositions ba doo soxla alalu jàmbur. Mhm. man yaakaar naa ne aussi on a des fonctionnaires qui ont leur responsabilité toujours dama koy wax bu ñuy wax dañuy wax politique yi rek rien ne peut se décider sans les fonctionnaires sénégalais. Mhm. kon fii mille mille milliards mënul jaar fen lu si loxo fonctionnaires yi. te bu laajee ñu ñam ñu jàmb ñu càmbar ko ñu càmbar ko xool ko man yaakaar naa ne loolu responsabilité partagée la bu dee détournement am na si. fii ku fi détourné xaalis homme politique bu fi détourné xaalis fonctionnaires yi son sont capables coupables. <laughs> d'accord ñoom ñëpp yaa xam douane la yaa xam finance la yaa xam xaw ma fonctionnaire yëpp ñoo yor lépp ministère boo dem balaa ministre bi di def dara dage bi am na si avem d'accord kon kon bu ñu nañu leeral loolu Sénégalais yi ñu xam ko ñu ministre kees saa yu ko neexee mu tijji amul ku la ko wax waxul dëgg. d'accord ministère ay fonctionnaire la fa nekk ñii politique ñu ñii ànduñu sax gouvernement ànduñu wax président bi beneen parti lañ bokk. am na ñoo xam ne ñu ngi ànd ak l'opposition kon réew mi munuñu fi def dara yéen sénégalais ay waxal ngeen yeewu si loolu te dama ko waxaat nit bu ñu la waxee dëgg benn yoon da ngay yeewu nga nekk nit dama ne fii mënuñu fi génn dërëm te fonctionnaire yi fi nekk ngeen dëkk ak ñoom ñu nekk suñu kër yi di suñuy mbokk suñuy nawle te xamuñu nu mu demee lu fi génn nag ministre lekk ko wala politicien lekk ko vous les fonctionnaires vous êtes les premiers responsables. d' accord to euh, Aliou Sané yow nga ñu fàttali mbokk yi réew mi FM ngeen déglu seen mission pencum réew mi euh, Aliou Sané la ñu invité ñu gën ko xam ci To Sané moom mu bokk ci écologistes yi mooy parti Ali daar boobu rassemblement des écologistes du Sénégal les Verts. fédération démocratique euh, fédération démocratique des écologistes du Sénégal les Verts. yow yaay coordinateur bi au niveau de Dakar. Mm-hmm. yaa ngi bokk ci mouvance présidentielle. Euh, ban cër lañ leen jox yéen fédération écologie yu Sénégal ci gouvernement bu yes bi. no ñun ñun. li mu mun a jàpp mooy ay daal daal. nommé nañ amu leen ay compétent wala. no am nañu ay cadre quelque chose comme ça. si am nañu on ne compétent. est-ce que vous êtes dans le gouvernement am ngeen ay ay ñooñ ci biir gouvernement bi. no on n'a pas dans le gouvernement de ministre ou amuñu ko. kon tekkiwu leen dara ci mouvance présidentielle mën nañ ko di waxee noonu. bu la neexee oui bu am na koy wax noonu sax suñu biir. am na ñeneen ñu koy gisee. manque de respect ou manque de considération bon man je pense que euh, am na loo xam ne suñu leader moo ko war a taxawee moom moo xam lu mu bëgg. waa xam ñi mu àndal ñan la ñu way parce que tey ñun ñooy liggéeyal askan bi ñoo fi nekkal réew mi man Macky Sall la defaluma dara. mais est-ce que noo xam man président Macky Sall ban njëriñ la ma amal lu dul njëriñ bu mu amal réew mi yëpp mooy liggéeyal ñu mais man maay dem uti indil réew mi jàppale jàppale yéen a ngi koy défendre. non défendre ko man damay défendre notre engagement notre ancrage dans Benno Bokk Yaakaar c'est normal man ngor laa wax jëfe léegi nag terewul am nañ fulla bu toll ni ñun ñooy wuti dimbali leen man xaaru man Macky Sall joxuma dara te am na su may morom fii maa leen ëpp paquet téeméeri junni yoon ëpp la njëriñ si réew mi ëpp ñu ma xam-xam parce que xam-xam da nga koy wane jëfee te man li may jëfee ñoom jëfewuñ ko ñu ngi leen jël jox leen ay ministre ay député ay kii mais. mais yéen kenn faale wu leen. ngeen topp ci ginnaaw Macky Sall. non dama foog ne loolu lu ñu war a wax la comme nii yéen journaliste gis ngeen ko wéy moo tax ma siy wax wax nga dëgg am nañ lu ñu mérité. te joxuñu leen ko dañ ñu ko war a jox. peut-être ay daar dénk nañ ko direction agence de la euh, reforestation et de la grande muraille verte oui. domaine am la domaine am la en tant que Ali Aïdar xam-xamam. li ñuy wax mooy ba mu nekkee ministre de l'environnement ak ministre de la pêche ñëpp gis nañ taxawaayam. ñépp dañu ànd si ne waaye Aydar baax na fii. waaw ah, d' accord léegi Ali Aydar nekkoon euh, ministre de l' environnement lan moo tax ñu jëlee ko foofu. ah wax dëgg yàlla jaaxal na ma de man tamit jaaxal na ma jaaxal. dafa def malversation. wala au contraire wala incompétent au contraire. gars yi ñoo ko songo daggukatu bant yi. ay lobby ñoo ko songo pêche tamit noonu songo ko. ba mu jàppee bateau russe bi di gis nga ko dañu doon joxe xaalis mu bañ. environnement ñi dagg garab yi li mu leen waxoon gis nga lay am bokk. mais mais fële bokk euh, euh, nu mu tudd foofu dëkk Casamance bi gis nga li fa amoon après te Aïdar dana leen ko wax Aïdar moo jël drone filmé Gambie dagg bois bi wane ko ñëpp gis ko ko boo bësee si internet bi YouTube. gis ah, léegi ñu def ko ndànk Ali Aïdar bi mu nekkee ministère de la pêche. dafa jàppoon ay bateau jàpp na fi benn bateau russe. benn bateau russe. waaw bu doon napp jën yi. oui te jàpp fi muy nappee amul autorisation. egg foofu waaw. léegi bi ñu ko jàppee. mu ne ñu ne ko demal fay trésor mu ne xamul trésor Aïdar ne ko xamul trésor woo un des responsables du ministère ne ko kii yóbbu leen ko trésor laaj na ko sax noo doon def bu njëkk bu ñu leen daan jàpp mu ne noo dañuy ñëw joxe si xaw ma si ministère xaw ma lan loolu mooy lan ay daal ne ko nag léegi bés ni ko tey dinaa di nga xam fuy trésor demal trésor nga fay ba mu demee dafa fay lenn li indi leneen li di ko jox liquidité ay daal ne ko yow yow yow yow tu têtu demal nga fay lépp trésor nga indi ma facture bi kon maanaam on va faire rentrer dans l'argent de l'argent dans les caisses kon mbuxum kon su ma la déggee mooy mbuxum am na ci bateau étranger yi napp ci biir géej gi. mais bu ya mais quand même ça il faut même pas se poser des questions c'est comme ça que les businessmen font ils c'est pas seulement dans la mer c'est dans la forêt c'est dans en l'air partout les businessmen ils ont pas de sentiment sur ça ils plient les ressources. de la planète xam nga tey euh, yéen xam ngeen ne kon euh, géej gi ali Aly Aïdara doon def ay jéego. ci bateau étranger yi nga xamante ni dañ doon napp fu ñu wërta napp. bu doon daal rek. waaw léegi non dama ne. Ali daal rek kenn doon ah, lu sàcc non ay Aydar mhm. dafa doon régler benn problème. exact te réglé na ko sax. mais dañ ko fa dàqe. voilà loolu moo jaaxal ñëpp. kon ña ko fa dàq ñooy ñooy ay trian ay tappalekat. non non non du ma ko gisee. non si xam nga non. non si non da xaaral ma wax la jiili jiili jiili. Mhm. xam naa li fi ma bëgg a yóbbu mais naa la wax dara. Euh, président de la république. moom la ñu jox pouvoir u nommer ministre moom yaakaar naa ne boo gisee nit koo xam ne la mu ko dénk mi ngi koy doxal bu baax daf ko war a garder waaye waru ko dàq bu ko dàqee nag peut-être. bëggul ko baax ko bon la bëgg. déedéet déedéet peut-être am na. xam nga président dina loo xamul yow ñun lu ñu xamul dina ko xam léegi peut-être am na si li mu sukkandiku pour def loolu. mais terewul daf ko jëlee environnement yóbbu ko pêche. waaw non xam nga waaw aussi. non non pêche. bi mu hmm. defee pêche xam nga tey. Hmm. environnement la njëkkee waa xam nga tey. Euh, Tosané. Hmm. dafa am loo xam ne dañ ko war a wax rek mu leer gis nga ñun yoruñu république boo xamante ni dañu bëgg di jël rek ñoo xamante ni ay ci wàllum escroquerie rek ci wàllum tappale jël xaalisu askan bi la ñuy dund dama ne la Ali Haïdar dañ ko def ministre de la pêche. bi mu jógee. environnement ndax bi mu nekkee environnement mbirum bant yi ñu doon dagg. am lobby yu ci nekk. Mhm. bi mu ko commencé di leen bunduxataal. gars yi song ko gars yi song ko ñu jëlee ko environnement. dëgg la yóbbu ko pêche. bi ñu ko yóbboo pêche mu jàpp fa benn ndax tey. mu jàpp fa benn bato mhm. étranger. Mhm. kooku bëgg ko ger. mu lànk ger googu. wax dëgg yàlla. te xaalis mënoon na ko dugal ci poosam. dëgg yàlla. te information yooyu yëpp. Macky Sall yëg na ko. ñu dàq Ali ñu dàq Ali Aydar ministère de la pêche. mooy kon ministre bu ñu tabb ngay xeex. mbirum ger ngay ngay wane njub dañ lay dàq mooy kon Macky Sall bëggul ministre bu jub ministre buy dëngal moom la bëgg. mais loolu la nga foofu lu ma la siy wax foofu tamit dama la siy jàppale wax dëgg yàlla parce que li nga wax nii da nga def analyse bu intelligente xool fii mu la jugee dem fii def lii ñu dàq ko su la neexee nga ne Macky il est incapable. je te le concède ñoom ñoo war a def loo xam ne nit du waxee nii. li si des man duma ma sans commentaire. waaw d'accord ñoom nañu góorgóorlu ba nga xam ne mhm. yow doo gis loo mun a waxee nii d'accord loolu ñoom seen responsabilité jox nañ leen tous les pouvoirs fal leen di leen liggéeyal di uti di leen jàppale mhm. nañu góorgóorlu ba bañ a may Djily Baaxdate muy gis lii ba koy wax d'accord voilà loolu moom yow xam nga ñi nga xam ne ñooy pêcheurs yi hmm. gis nga moo tax sénégalais yi bu ñu déggee léeg-léeg di leen wax dara dañuy lànk li tax ñuy lànk dañuy wax ne ñii non seulement du ñu ay citoyen mais du ñu ay nit ñu jub du ñu ay nit ñu bëgg réew mi ndax tey par exemple tey li ma doon exemple si Alioune Dar léegi accord de pêche yu ñu signé dama waxtaan ak ay pêcheurs yu baree bare baree bare bari ak ay mareyeurs jël leen invité leen ñu ñu ne ma ñoo xam ne ñooy dugg ci biir géej gi ñu ne non seulement ñoom ministère bi jàppale leen ci ay matériels yoo xamante ni danañ man a dem ci biir géej gi beneen bi ñoom nee nañu bateau étranger yi dañuy yàq léeg-léeg seen matériels yi di dépasser fi nga xamante ni fa lañ war a yem. ñu ne ñu Mauritanie sax surveillance bi Mauritanie am ci seen géej gi Sénégal amu ko ci te loolu jàpp naa ne bokk na si li tax ñu bari ñu doon yëngatu ci géej gi dem ci gaal gi loolu ministère de l'intérieur ñoo ko wax ministère de l'intérieur ñoom ñoo ne émigration clandestine ren jii ñi faatu ci géej gi ñi si ëpp ay mool lañ te ñoom mool yi nee nañu jafe-jafe bi ñu am mooy accord de pêche yi ñu signé ak fi ñu ak bateau étranger yi ñoom ñooy jéggi fi ñuy napp ba ñoom duñu am benn jën bu ñu napp kon déjà yow war nga xam ne Aly Aïdar ma ngi doon def liggéey ba am solo. Mhm. buñ ko buñ ko empêché. xam nga foofu. Mhm. li ma la si wax mooy damay dellu si li ma la waxoon si responsabilité des fonctionnaires sénégalais marine nationale c'est pas des politiques. mais marine nationale ay nit dafa nekk rek. waa nit yooyu ay militaire ak yooyu du général kii moo ko yor mooy ki nekkoon aide de camp Ablaye Wade. mais niñ gëree Aly Aïdar mu laang. waaw mais léegi moo tax ma ne la léegi kon affaire bi peut-être est-ce que Macky Sall ñu fiy jëriñ lu tax doo leen woo si rajo yi ñu wax. lu tax doo leen dem laaj leen ñoom lan la ñoom ñuy jox bateau yi pour ñuy surveiller géej gi ñuy seetaan gars yi di plier géej gi ñu ñu ñuy nelaw bu ñu jugee dem ñibbi seen kër yi toog dégg ñuy xas politiciens si rajo bi te ñoom lañ jox gaal yi pour ñu surveiller qu'est-ce qui se passe tey fraude bu duggee si réew mi man la politique bi wala douanier bi la insécurité ba amee veiller sur la personne et bien bu amul kan la man la saane wala policier bi la wala gendarmerie ñooñu dee leen woo si rajo yi des na tuuti politiciens yi da leen war a arrêté di woo ngeen woo ñi nga xam ne ñoo ñoom la ñu dënk réew liggéey d'accord léegi euh, beneen bi mooy mool yi bu ñu ne gouvernement Sénégal jàppalewu leen yow say mool la ko wax yow mhm. man xam naa mool non mool yi nekk Soumbédioune Soumbédioune ah yi nekk euh, yi nekk Ndar waaw yi nekk Mbour kaay ma wax la ñoom waaw déglu ma rek man xam nga li ma lay wax nii waaw dama lay wax non déglu naa li ngay wax journaliste nga xam sa efficacité nga ko tu as des dama ne say mool waxuma say mool xam na waxin la daal maanaam mool yi nga dajal man xam naa ne yow da ngay dugg si ga digg léegi dama lay wax voilà am ngoog xam man xam naa ne yow da ngay dem géej voilà léegi dama la ne xam nga lan la état bi xam nga nu mu njëkk a aidé mool dañ leen ne napp nii la ñu war a nappe mbaalu caas caas baaxul si géej gi parce que bu waddee dagg wadd mool yi ñu si bëri du ñu plongé fa lañ koy bàyyi mbaal moomu plongeurs yi ñooy mujj dem nettoyer mer bi ko mbaal yooyu day dund du dee mukk mun na fa def deux cent ans trois cent ans jën bu romb mu jàppale te kenn du ko ñëw ñu ne leen tere nañ ko gis nga xeex bu mu indi woon coow li yow fii déggoon nañ fi coow li ak ah, ndar-ndar yi fi ñëwoon di napp am ñu dëgër bopp ne duñ ko bàyyi nga jël wàllu euh, moteur yi moteur buy jar un million cinq cent état Sénégal subventionné la presque million ne la un million bi man maa la ko tegal kon bu ñu ne jàpp lañ dañuy wax lu ñu neex zone marine protégée déggoon nga xale bi dee woon fële ki ñu jamoon fital su mbéjun île des serpents île des serpents fële si sa mbéjun parce que foofu zone plongé naa fa sama formation lu si ëpp fa laa ko defee di plongé foofu si ñaari îles yi dañu ko denc pour foofu pour jën yi dafa mun a jur mais am na si ñoo xam ne la ñuy tere la ñuy def lu tax Mauritanie xaaral ma la la ñuy reproché bateau pêche ñaata yoon la Mauritanie jàpp ay sénégalais parce que dañu jalgati ñaata yoon jalgati fépp la am dëgg la nag bateau yu mag yi. Mhm. nit ñuy def géej gi dafa doy waar. dafa ñaaw waaye nag géej gi bëri na bëri na ressource boo xam ne tamit ñëpp xaj nañ si waaye dafa am jën yoo xam ne du taxaw day daw soo jëlee wàllu ton yamul benn place. mais est-ce que Sénégal jaayuñu géej gi état bi dañ leen tuumal nañoo jaay géej gi. non géej kenn mënu ko jaay mais buñ ne dañoo jaay géej gi mooy lépp lu sa baax jaay nañ ko jox nañ ko tubaab yi waaw léegi jox ko léegi jaay ko léegi dama lay laaj bato tubaab yi tey la gën a wàññeeku xamul tax parce que ñoom Sayer sekk ak ñeneen ñeneen léegi ñoo yor seen bato am na ñu naan sax bato yooyu tubaab yee ko moomoon ñoom ñu jël ko def ko seen sénégaliser ko pour bañ a fayati tax ay daal waxoon na si coow lu bari nga dégg ko fi Sayer Seck doo koy dégg wax mais génne na attaqué ay daal pour wax ne la li ñu war a régler moo bari. mais am na ndëngate ko si am daal. dama ne ndëngate am na fépp. si santé bi si pêche bi. non wax xam ji parce que li nga ma laaj tamit. dama lay leeral mais dama la laaj ne ndëngate man si pêche bi laa la laaj. waaw mais fu ndëngate naa ma ne. fu la neex nga ne ndëngate am na. voilà mais dama ne la. Hmm. ndëngate am na ci wàllum pêche bi wala amu ci. yow sa expérience en tant que écologiste en tant que am na géej en tant que jege woon Alé Dar ministère de la pêche. pour pour être pour dire vrai am na si. d' accord ñu ñu bu ko defee ñu mën a jàll ci leneen réew mi FM ngeen di déglu gis nañ ne gouvernement bi teg nañu ko yéen bokkuñu leen leen si euh, yéen écologie si yéen parti bi Alé Dar euh, jiite euh, dugal bi ñu yaatal gouvernement bi ay Idrissa Seck ay Omar Sarr dugg si yow lan moo ci sa xalaat. non xam nga président dafa woote woon dialogue national ba mu wootee dialogue national Omar Sarr dégg lu mu wax nee na dialogue national ba muy dem sax. dafa yóbbaale woon dossier Karim kon dialogue national mooy waxtaan man assisté naa dialogue lancement dialogue national la si benn hôtel dakaar représenté suma parti man yaakaar naa ne bu ñuy woote dialogue national mooy pour waxtaan pour xool nu ñuy boole suñu doole mais dëgg la nag réew day am opposition une un pays démocratique day am opposition forte yàgg nga ko wax nga dëgg loolu tamit dama la si jàppale wax dëgg yàlla bu ñu nekkee hors antenne ma lay créel sax bu ñu toogee fii naa la wax wax nga dëgg bu baax réew démocratie day am une opposition forte léegi nag nit ñi kenn mënu leen forcer si dara bon mais président bu dee dafa tijji waxtaan bu jubóox ñoom tant mieux doo loolu tamit dañ si wax. waaw mais xam nga tey waxtaan boobu mais mais xam nga waxtaan mais waxtaan boobu xam nga tey gis nga. Euh, Aliou Sané. waxtaan boobu lan mais To Sané. dama lay wax benn affaire boobu bëgg expliquer benn affaire rek xam nga yow. dialogue la. xam nga yow bu ñu déggoo Idriss Seck what is the problem. xam nga yow Idriss Seck fi mu toog nii da ko gën a bëgg. xam nga yow Idriss na de fu mu ne nii xam nga yow da bëgg a euh, Aliou hmm. gis nga Macky Sall. Hmm. bu mu leen euh, gënal seen mbokk yeeg seen naaw li nga xam ne ñu leen dégg yow man kan moo ma gënal sam bopp samay mbokk xam nga tey yow ah, non seen yow xam nga national bii nga xam ne yow liir nga presse bi waaw Famara Ibrahima Sagna mi nga ne ni mën nañu wax dafa gedd li tax dafa gedd mooy Macky Sall ñëpp ñu am xel di xalaat xam nañ ne dialogue bi taafantalu la nan nga mën a comprendre ñu teg dialogue national bi nit ñi dem di dialogué muy gisante ak sa Seck di waxtaan ci suuf di gisante ak ñoom Omar Sarr di waxtaan ci suuf ñu war a waxtaanee statut de l'opposition si dialogue national ba mu toog ak Idriss Seck di ko waxtaanee ak moom est que loolu xel mën na ko jàpp. waaw waaw no instance dialogue bi ñoom ñi leen fay représenté ñu ngi fa. terewul ñoom bu ñu bëggee waxtaan seen biir am nañ si droit tout le permet ça lépp ma am nañ si droit. mais est-ce que du woon yaatal majorité. su leen neexee su leen neexee. Macky yow lan mooy liggéeyam nga foog président Macky fullam a faydam mooy yaatal majorité bi. comment déedéet loolu fulla ak fayda. mais dama ne fullam a faydaam mooy ut ñi ko gën a dooleel ma président bu bëggul loolu adduna bi bu ko soxla lan nga bëgg a président di dàq gaay pré fan nga mus a gis président buy dàqee foo ko mus a gis moom kay bu amee mun a yaatal day yaatal te ñun loolu lañ ko demandé sax plus mu mun a yaatal na yaatal. mais dañu gis ne. ñi ko doon euh, xas démb ak bërki démb loolu yakk nañ ko ko. ñoo ñëw tey ay Idriss Seck ñoo ñëw tey est ce que loolu jikko bu baax la jikko bu rafet la gis nga gis nga nit ki mun na la xas parce que dafa comprendreul nit ki mun na la xas parce que moment boobu la contexte bi nit ki mun na la xas parce que dafa am lenn lu ndaw loo wax wala loo jëf mu mere la si waaye tamit nit ki. kon yéen daal lu ngeen wax man ngeen see génn. déedéet du loolu wax na lay wax defoon wax waxeet gis nga dama ne wax waxeet man maa la waxoon jiili fële hors antenne lii tey wax naa la ne wéy un pays digne de son nom démocratique doit avoir une position forte bu dee da ko tuddee wax waxeet tant mieux man saa yu ma waree reconnaître ne wax nga dëgg danaa ko reconnaître waa su ma juumee ne juum naa mais léegi dama ne politicien il est conditionné xam nga lan ma koy conditionné par des coalitions par des stratégies par des alliances et part des contextes et des réalités loolu ku la munti wax lii ma lay wax dalay wax rek wax bu yàqu politicien bu la wax lii tey li koy conditionner suba ça dépend de la situation de ses alliances ou de son parti ou de ses stratégies moo tax ngay gis tey politicien wax la lii moo am États-Unis moo am France moo am Sénégal moo am Arabie Saoudite waaw mais xam nga tey par exemple tey boo gisee euh, lu ci mel ni au conseil euh, conseil économique social environnemental ak au conseil des collectivités territoriales mais Aliou Sané il faut ngeen xam ne gis nga Sénégalais yi moo yéen moomu leen Sénégalais yi beneen bi gënu leen a yeewu Sénégalais yi benn bi tamit Sénégalais yi bari dañu jàpp ne say caaxaan kese lañ yore réew mi xam lan moo tax tey Sénégal fi mu toll ndaw ñi di dee ci géej kenn amul liggéey dëkk bi metti coronavirus bi même zéro virgule xaw ma pour cent taux de croissance bi yéen a ko gëm mais am na ñu bari xam tax dafa am benn incohérence boo xam ne moo ci am bu ngeen ko gëmoon au conseil des collectivités territoriales ak xeet yi mënoon nañu wàññi budget bi wala ñenn ñi sax tas ko lañu jàpp te mënoon nañ ko sax tas benn bi Idriss Seck dafa ñëw ñu yokkal ko li nga xamante ni maanaam mooy budget mais loolu nan fan la ko xel mën a nangoo. waa léegi ma laaj la benn affaire. Mhm. d'abord askan boobu ngay wax ñun ci askan bi lañ bokk ñun ku ñu jàppee dof yow yaay dof bi. man mii si askan bi laa bokk ku ma jàppee dof yow la yow yaa damay dama sax damay moom dama leen a yàpp sax di la ndax yéen yéen moom dénkul ñu leen dara yéen moom amu leen benn waaw amu budget joxuñu cër non non non manque de considération non joxuñu ko Macky Sall Macky Sall président de la République joxul écologiste si c'est vrai joxu cër faale joxul écologiste si Aïdar la jox mhm. su ma comprendre mhm. parce que mënul jox écologiste si te su joxoon écologistes yi peut-être. daaw nommé kenn wala dara. dinañu boole ñun ñëpp si loolu. Hmm. am nañu tamit ku ñu joxoon ñun écologistes au conseil muy cuun mais voilà loolu am na benn affaire la mais dama ne am na loo xam ne dama siy d'accord wax yow mooy président la république ñu muy àndal ñëpp ànd nawle la war a doon ñuy waxante dëgg xam ne lu li nga bëgg la ñu bëgg. ku nekk bu lu baax ku nekk bu nga waaw góor jërëjëf ba pare ñi mu àndal moom ñun ëpp ñu njëriñ si réew mi. Macky Sall ma ne ñi Macky Sall àndal. Hmm. man mii di wax a yow écologiste Macky Sall ñi mu àndal ëpp ñu ma njëriñ fa ma dëkk ëpp ñu ma njëriñ si réew mi. ñoom Seydou Gueye médina no ñoom dama ne du ma tudd tur dama ne. dama waxuma yam non yamu yamu ma Medina dama ne. kuy wax integration africaine di wax écologie ëpp ñu ma xam-xam. maanaam booy jàng rek bu dee jàng ku la wax intégration on est à l'heure des grands ensembles ku la wax écologie c'est la solution aujourd'hui de la planète mais lan ma tax faale wuñu leen non du question faale wuñ ñu du question faale wuñ Macky Sall maanaam Macky la yéen a war a wax yéenay ah, xool ngeen wax non xam nga yéen yéen euh, yéen yéen yéen ñi toog di gis yéen ànd nawle bi ñi ngeen dëkkal yow yow fa nga dëkk ña fa am njëriñ xam nga leen waa xam nga Macky Sall tey ñenn ñi sax ñoo ngi koy tuumaal Samba Alaar ci euh, Macron mi am coronavirus mu koy euh, naan ko wéral ak jàmm te am ay député yoo xamante ni fii la ñu am coronavirus Macky Sall faaliwu leen euh, amul benn poste bu mu ci bind lenn lu mu ci lu mu ci yëkkati kàddu ñeen sax dañ ko jàppe Samba Alaar mais li ñu li ma la bëggee expliquer foofu foofu dama la siy tontu foofu tamit il faut pas que gis nga sénégalais yi tamit dañu compliqué wu ñu sax yenn yi wax wax bu yàqu la quoi xam nga lu tax maa ngi jégalu si waxin bi mais dama ne député yi. amuñ njëriñ. non amuñ njëriñ mooy wax la non waxuma loolu de dama ne député yi bu ñu coronawee ministre de la santé chaque matin dix heures day taxaw ne moytu leen ñi ngi masse wu ñu corona. ñi ngi ñi ngi jaale ñi dee non dëgg la il parle au nom du gouvernement du Sénégal kooku c'est au niveau national ñu ngi koy assurer tous les jours à dix heures masse wu ñi corona jaale ñi deelee ba pare ne leen moytu leen fagaru leen kon député yi ñoo war a njëkk a commencé joxe exemple moytu corona bi président Macky Sall bu yónnee Macron c'est son homologue président diggante ñaari président tey rek Trump woo na xaw ma démb rek Trump woo na Macron réew mi nag fi lañ dëkk moytu leen député conseil représentant du peuple bu ñu naan réew mi moytu leen kay ñoom lañu njëkk a waxal. d'accord mais xam nga. booy euh, Macky Sall di jaalee masse wu Macky Sall waxul si jëlul ay mesures pour affaire géej gi. noonu la jëlee mesure ci corona bi mesure yooyu ça concerne les sénégalais mais terewul nag homologam Trump bi mu amee corona wala keneen nga ne ko waay mas mas yàlla yàlla may bon rétablissement parce que c'est notre collaborateur doo ko ñaanal. d'accord mais yéen euh, coalition Benno Bokk Yaakaar xam nga dès le début bi ñu tegee Benno Bokk Yaakaar dama gis ne couleur Benno Bokk Yaakaar sax Macky Sall def ko jël def ko couleur partem couleur parti APR moo nekk couleur Benno Bokk Yaakaar loolu rek déjà àndum nawle amut foofu yéen kay yéen topp ci ginnaaw Macky Sall di lambar lambari fu mu leen jaarloo ngeen jaar fa mais ku mu bëgg a rëq sa ndik rëq sa ndik mais ay euh, landing savane ñëpp ñoo ngi ñoo ngi ñaxtu leen ànd àndu nawle foofu. bi nga àndu nawle bi ngay wax fii. non dama xam nga tey man kenn mënu ma imposer couleur bu ñu ne Benno Bokk Yaakaar yow miy dégg jàppal Benno Bokk Yaakaar ñun écologistes ñu ngi fa ñeneen a nga fa. couleur boo mënut di sa affaire la peinture jël marron peinture yëpp marron wala beige sama pomme problème moi je suis vert je suis vert. mais est-ce que seen réunion yéen nga fa am ngeen fa représentant. bien sûr dañuy dem si réunion yi. d'accord mais troisième mandat bi ñu wax lan moo ci sa xalaat. non troisième mandat bi damay yem rek si le président wax. lan la wax. <laughs> déggoo ko yow yow déggoo ko yaa ma gën a dégg lu président wax moo tax nga may laaj. Euh, président Macky Sall daal nee na moment bii du wax parce que bu ne oui nii bu ne non nii. mais yow lan moo ci est-ce que yow sa xalaat jàpp nga ne lu mu war a def la man mi wax ak yow nii too man Abdou Khadre jàpp naa ne Macky Sall wërta def beneen mandat man jàpp naa ne bu ko defee lu man a am ci réew mi ni jëye am na si part de man xam nga loolu laa jàpp. waaw yow lan nga jàpp. waaw non xam nga man tamit jili bu may wax bañ nga ba léegi nga wax benn boo ko yaakaar. wax nga tudd nga fi ay dara ma xam nga invité wu ma ici personnellement. waaw d'accord waa léegi ji li li may laaj maa la gën a xam xam naa li nga may laaj bu baax te li nga bëgg ma tontu la duma ma la ko tontu xam nga la laal tontu dama ne man président Macky Sall boo bëggee troisième mandat te mu conforme au texte dama koy jàppale. Hmm. mais si kaw si kaw suma parti ñu waxtaan ba pare ñu xool. su dee war nañ ko def war waruñu ko def mais en tout cas du ma ànd ak muy Macky président Macky Sall muy Aïda Arax ma Samba ma Demba du ma ànd ak kenn dans l' illégalité loolu moom maa la ko wax fii tey. mu doon président Macky Sall wala mu doon xaaral wax la dama koy leeral mu leer dama ne. bu dee li may ànd ak ñoom c'est dans la légalité damay dem ba jeex te ñun sax ñun tollooguñu si waxi waxi troisième mandat xam lu tax ma loolu la tolloo si engagement bi ñu amoon dans le cadre de Benno Bokk Yaakaar engagement bii la woon reconduire le président la de la république def nañ ko toogaatuñu nag mu ne ñu dama buggaat troisième mandat bu ñu ko waxee ñun boobu xam nañ tamit fu ñuy taxaw. mais est-ce que yow too yow li nga jàpp. Macky Sall war naa def beneen mandat ci li nga xalaat yow xam nga man du ma juriste. waaw mais man du xam nga nag du man maay wax nga man waaw man li ma la leer na. waaw xam nga man du ma juriste wala yow déggoo ne la si man bokk naa ci sénégalais yi nga xam ne jàpp naa ne conseil constitutionnel mënul àtte lu partiel. awma si confiance ci li muy dogal ëllëg ci loolu xam nga man wax naa li ma xalaat. amoo si confiance awma si xalaat ci awma si confiance li ma xalaat xam nga lan moo Euh, mën loolu laa jàpp dama bëgg yow nga ne ma yow lan nga jàpp ci ñetteelu màndaa bi ñu ñetteelu candidature Macky Sall bi ñuy wax xam nga yow toosaane mais man li ma wax naa la si ñett tamit naa li nee naa la président wax na lii ne la moom non waxuma li mu wax na yow la wax yow dama la dama la jëkk wax loolu beneen bi man ne la dañu bokk coalition te engagement bi ñu amoon moo doon ànd ak président farat ko bii mandat def nañ ko Euh, léegi bu dee dafa bëgg troisième mandat moom xanaa mi nday mbilli gi ñi mu àndal xanaa dina. mais est-ce que moralement troisième mandat ak li xew deux mille. dama ne si c'est 2012 xanaa xamoo troisième mbiru troisième mandat moo waral ñu def jël ay milliards organiser référendum. non non non non non xam nga xam nga troisième mandat bi ba ñuy wax xam nga dañu ne mandat de cinq ans am na ay borom xam-xam yu naan la texte yi bindul mandat de sept ans. mais moralement. il moralement mooy lan. moralement mooy moralement terewul texte yi il faut les appliquer. accord on euh, applique les textes dama ne la gis naa sa position man kuy def déedéet sama position waxum déedéet dama ne. kuy def loo xam ne c'est conforme au texte et à la loi hmm. si ànd. waaw dama ne kuy def nag loo xam ne c'est pas conforme au texte et à la du ma si a loolu leer na waaye ji xam nga tey bu ñu wax mbiru ñetteelu mandat Sénégal. oui baay bakkan yu bari dee si 2012. bañ wax ne Ablaye Wade wërta def ñetteelu ma lan moo indi woon coow non xam nga xam nga yow ñetteelu euh, mandat bi wala changement bu mu bëggoon def euh, vice président bi muy doon indi euh, assemblée loolu lépp ci la mais yéen xam nga 23 juin waaw d'accord mais indi coow li Karim xam nga lan nga waroon wax mooy li Macky Sall wax Macky Sall li mu wax xam nga mooy lan Sénégal yëpp dégg ko mooy 2019 bu ñu ma falaatee mooy nekk sama deuxième ak sama dernier mandat ay la yeween loolu la Macky Sall wax te nit bu bépp nit bu respecté sa bopp buñ la laajee ci mbir mi yéen waa ah, waa benn bokk yaakaar bu ñu leen laajee hmm. ay miiri ñing dafay wax ne juridiquement Macky Sall war na am beneen mandat Cheikh Omar Anne bu ñu ko waajee mu ne juridiquement Macky Sall war na am beneen mandat mais yow war nga am sa sañ-sañu ne Macky Sall am na war na am beneen mandat wala wërta am beneen mandat sa xalaat man man du ma wax loolu man du ay wunu ñing du ma xam nga la laay wax man dama la wax lu leer nga dégg ko comme bëccëg dama ne am naa fulla bu toll ni Macky bu buggee def troisième mandaa te c'est pas conforme au texte et aux loi ma ne ko président juum nga am naa fulla boobu doo ko jàppale mais damay du ko si jàppale bu boobaa. bu dee c'est pas conforme à la loi et au texte. dama ne je suis politique nag. Ah, waaw je suis politique dama <laughs> damay wax loo xam ne day engagé sama parti. te dama bokk ci coalition am naa cër a respect boo xam ne li may wax xam naa ko maintenant bu jotee. Mhm. bu jotee bu wax jotee sur la question bu ndeyu mbill bi bu si bu waxee ba pare. Mhm. bu ndeyu mbill gi waxee. d'accord ku nekk war nga mën a. wax sa xalaat léegi euh, bu Dakar bi ñu wax ne dañ ko bëgg a supprimer lan moo ci sa non loolu man foog naa ne foofu dama ci ànd euh, lu leen grand sëriñ da Dakar wax Ablaye Diop Matar mhm. ëpp ñu ko si xam-xam gënuñu ko dëgg si dëgg bi ëpp ñu ko si xam-xam te wax na xalaatam man xalaat boobu laa ànd ba mooy ban xalaat mooy dakaar moom mënul ñàkki meer mënul ñàkk maire waaw àndoo ci loolu daal déedéet ànduma si est-ce que du xeex xalifa Sall moo tax ñu bëgg supprimer maire bu Dakar non Khalifa man dama yaakaar ne boo bëggee xeex Khalifa Sall doo ko jaaree maire bi yoratu ko du meer

non état dafa jàmmarloo Khalifa Sall fii mu jàggi leen dóor teg si suuf. loolu non non non non non non non non xal non non demewul noonu demewul noonu du du état. Mhm. Euh, Macky Sall euh, élection yi mu fi dem yëpp moo gagné. élection Dakar laa wax. non non munoo gagné fépp nag. ah Dakar mais capitale bi dakaar bu leen neexee ñu bëgg Khalifa Sall amul problème. waa Dakar yi xanaa bëgguñu dara bu leen neexee ñu bëgg xalifa xalifa Dakar la dëkk xalifa waxul waalo la dëkk de xalifa waa Dakar la d'accord bu ko gars yi falee léegi ñoo ngi waaj a jeexal euh, commune bu Médina waaw euh, gis nañ ne def nga fa élection ak Bamba Fall oui Bamba Fall yéen moom Bamba Fall mooy seen kii seen bête noire fu mu leen fekk yéen Youssou Ndour ak Cheikh Tidiane Ba xaw ma Seydou Guèye ak yéen ñëpp daal Bamba Fall day dóor rek yéen kañ ngeen ni am majorité. Euh, ci commune non benn benn ah. élection moo fi amagum muy 2014. Mhm. Bamba def leen lan. non mu gagné. avec mhm. ànd ak taxawu Sénégal. Mhm. taxawu Ndakaaru. Euh, te yaakaar naa ne tamit Bamba suma waay la suma rakk la ñoo bokkoon di politique ak Ahmed Diène bokk bureau mu nekk secrétaire lu ma nekk chef de cabinet je pense que yàlla may na ko tamit am na expérience politique am na intelligence politique. te tamit fexe na ba nga xam ne Medina ñu bari xam nañ ko. mais def na dara Medina. mi ngi góorgóorlu mais on peut toujours mieux faire moo tax man may ñëw di jàppale Medina set may indi leen camion peinture euh, da ngay tabax may indi la ciment wala may la suuf. andi leen garab. may la ay garab defal la ay jardin may la ay pot de fleur di la jàppale loolu laa mën. corona ñëw ma indi ay millions dugal ci dëkk bi loolu laa mën. d'accord léegi. Euh, loolu rek laa mën nag wax dëgg yàlla waxtu bi jeex na léegi une minute. dañoo gis ne garab yi ñuy dagg fii ci tali bi. boo mm-hmm. xooloon avenue Bourguiba bi Sénégal daal dafay mel ni euh, même gis nga Colobane euh, allée centenaire bi parfois ci côté monument bi dañuy dagg garab yow en tant que écologiste loolu ndax naqari na la. waaw man moom écologiste garab bu ñu daaneel moom bu doon pour defar dana ma metti man bugguma kuy daaneel garab xew na sama koñ tout récemment. naa lawbe bi nee naa gis nga boo fi dagatee garab. dama dem ba fekk ko place mu ngi may dégg mi ngi centenaire foofu laa ko fekk ma ne ko gis nga fii amul suma kër ma ma dem ba bés boo fi dagatee garab. <laughs> man maay woo ooyee forêt woo police jàpp la. man bugguma kuy dagg garab ba dëgg la nag comme ni ñuy wax qui fait des omelettes casse des œufs nen bi. Mhm. boo bëggee defar omelette. Mhm. xam nga lu kook bi rafet rafet di nga ko toj. Mhm. mais yaa ngi mais ah, xam nga la moo nekk ci conséquence garab yu mag yi dañu war a lu faxe maa ngi ciy lancé un appel sax au directeur de l'agence et la reforestation mooy aydaar di ci lancer l'appel au ministre de l'environnement mooy ngeen fexe góorgóorlu garab ñu koy bañ dagg mais di ko sempi yóbbu ko feneen. d'accord dañu war a liggéey ci loolu parce que mm. affaire bi du dagg rek dagg dafa yomb trop. jërëjëf trop xam nga lu ñu war a fexe. Uh-huh. góorgóorlu di gas. Uh-huh. dindi ko comme yi yenn dëkk yi def. xoolal bu ñu bëggee di garab bi dañ koy dindi yóbbu ko feneen te loolu c'est extraordinaire c'est magnifique même mm. Aïda tout récemment bi muy déplacé pépinière u Océan ñëpp gis nga dañ ko sempi yóbbu sambaat d'accord je pense que dañ euh, si war a góorgóorlu d'accord maa ngi lay sant di la gërëm euh, Aliou Sané non man maa leen di gërëm di la gërëm yow personnellement si sa invitation bi et puis di la gërëm si sa pertinence aussi yëngal nga ma tey mais xamal na rek man Macky Sall maa koy jàppale jàppalewu la jàppale ay daar mm-hmm. man jàppaluñ ma li ñuy def réew mi lañ koy defal ci réew mi laa bokk mais bu dee jàppale maa leen di jàppale te ñu ñu àndal ñëpp ëpp luñ ma njëriñ ci réew mi te loolu ñoom xam nañ ko te loolu moom nit ku nekk noonu nga war a taxawee te foo naa nit ko am si waroon nañ laa nommer dara sax mais boobu seen intérêt la koo nomewul muy iti di indi te ba ma nekkee xale ba léegi si laa dëkk ma may def li may def ñoom ba ñu amee suma âge mënuñu ko amuñu xam-xam bi mënuñu ko parce que man maa fa nekkoon ñu may gis <laughs> kon bu ñu demee ba yor bu ñu ma dénkee day gën a neex rek bu ñu ma dénkul nag seen affaire la ma continuer li ma def man xoolal li ma desee fi sama àdduna mhm. waaw góor a jërëjëf rek laay wut maanaam liggéeyal askan bi jaamu si yàlla samay mbokk gërëm ma samay àndi jàmm gërëm ma nit ñi xam ne man am naa njëriñ sama réew bu dee nag ñoom alalu réew mi boo ko yoree nga gis ko amal njëriñ réew mi da nga koy dooleel bu dee xam-xam ëpp ñu ma xam-xam kuy wax intégration du écologie ëpp ñu ma xam-xam xam-xam weesuwul wuti indi te maa koy def te ku si am ëpp ñu ma fit parce que man mi dem ba am sama diplôme plongé mm. xam nga ku ragal du plongé kon nañu waxante dëgg mooy nañu jàppalante jàppalante bi mooy jàppale da ngay jàppale sax li nga moom suñ ma falee man suñ ma falee wuñ ma dañ ma jàppale dañuy jàppale seen bopp d'accord beneen bi gis nga polyclinique ba ma nekkoon nekk fa trésorier waaw un milliard bu ma tudd du gis nañ ma def. Mhm. di lay takki morceau. di ma takkal morso na dem a dem a dem noonu lañ ma fa jëlee. d' accord voilà mais c' est pas bon. jërëjëf euh, <laughs> Sané ñu koy jant sant baax di ko gërëm mooy coordonnateur euh, fédération. écologiste yu yu Sénégal euh, yaay coordonnateur bi ci Dakar. mooy parti boobu Aliou Aïdar jiite avec la Médina aussi. nekk Médina responsable politique foofu. di membre du directeur waaw di xëccoo mairie bi. Bamba li ngay wax ne Bamba def ñuy dóor di dóor di dóor no non non Bamba benn yoon la ñu gagné mooy 2014 li si des yëpp ñun bu ñu àndee euh, te ñun 2014 ànduñu woon sax si ñoo ngi bokk si coalition bi mais dañ demal suñu bopp. waaw ah, d'accord dis euh, élection législative yi tamit ñu bokk si coalition bi demal suñu bopp kon Bamba tamit bu gagné alhamdulilah comme ni ma la waxoon rek laa lay waxaat élection ngi ñëwaat on va voir de façon man xam nga je suis toujours engagé. pour servir et d'accord je vais euh, loolu moo nekkoon euh, seen émission pencum réew mi Abdou Khadre moo nekkoon ci kàddu gi Mamadou Diaw Diallo ci wàllu technique bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.